pare mbayang lum ñëw ci saal bi ànd ak ay doom ndeem ay xaritam ay soppeem ki nga xam ne moom mooy xujanduur ak euh, denjoor ak benn àndandoom muy woykat vraiment mu nekk loo xam ne image boo xam ne dafa rafet lool image bu raar image boo xam ne nag tey bëgg nañ fans yi xam bëgg nañ képp kuy dundu làmb rek wala képp koo xam ne dangaa bokk ci axlu làmb rek kii di mbayang lum kii di àndandoom yi ñu waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moom mooy initiative bu ñu jël tey pour fas yéene dégmal li nga xam ne moom mooy spécial ndogu chez Mbayang Loum mu dégmal ko invité ay nitam invité waa fan si ko la bam ay xaritam vraiment ay mbokkam ñëpp ñëw kër gi fees dell mais avant tout euh, balaa ñuy xuus dañuy nuyoo ki nga xam ne moom mooy ndey bili bi muy Mbayang Loum waa asalaamualeykum wa rahmatullah ziar naa ñëpp baalu ñëpp ak baal ñëpp ak aussi euh, si weeru koor gi mais dañuy baalu pour toujours rek comme ni ma koy waxee ndax bu dee weeru koor buñ nee weeru koor bi kese baal ma àq pour weeru koor bi kese rek te àq dafa sew te ñun ñëpp dañoo dëkk ñàkkul saasu su ne rek nga amel nit àq kon ñu ngi baalu pour saasu ne di ñaanal ñëpp jàmm aussi kilifa diine yi kilifa aada euh, rawatina axlu làmb fi nga xam ne foofu laa yëngu ba ñëpp xam ma ci làmb ziyaare fu fépp fu fan nekk rek ziyaare naa ko bu baax a baax a baax. ndeysaan nag mbay mu ngi leen di ziyaare yéen ñëpp. ndeysaan avant ñu xuus nag dañ leen wax ne képp ko nga xam ne yaa ngi ñuy seetaan rek fii ci Ndindy TV Guelmak TV Sarr TV Mbour Tefesse TV ñu ngi lay ñaan nga abonné su fekkee abonné ko nga laal cloche de notification bi pour lépp lu ñu dugalati rek nga bokk ci li nga xam ne da koy njëkk a jot ñu ngi nuyoo ki nga xam ne nag moom mooy Ndeye Ndior di doom nayu xujanduur ñu ñëw teewalee mbayam lu besam bi waaw asalaamaaleykum fan si club lu yëpp ak mboolem ko bëgg mbayam lu ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant teew si nag fii ci kër Mbayang lu ci ndogu li ni mu ko yàggee defee sax at bu ne te at bu nekk yaakaar naa ne ku xam mbayam lu xam ko ndenjoo dafa jóg ba lu mu woot la ñuy gis d'accord ngeen di faral. jërëjëf kon bu ñu waxtaan ak Ndeye Ndior ah, dañ koy jox ki nga xam ne moom mooy Khoudia Ndour ah doom ndeyam. waaw asalaamaaleykum waa Akhlu Lamb asalaamaaleykum fan sa Mbayang ak képp ku nekkul fan sa Mbayang maa ngi leen di ziar dilen balu ak di bal ñep ak ci wër ko bi ñu nekk ni wa ku xamoo xuja nak xam kook mbayang lu ku xam day ñor xam kook mbayang lum mbayang lu fu munti nekk dañ ko fay fekk ci nekk c'est la première fois rek ñu fii soog ñew ñëw ñun chaque année di lii dañ koy défar rek té day gëna neex tamit day gëna a té day gëna neex ak ñu e yëm fofu ci vraiment mu nekk artu bo xamne dafa rafet lool ak seen nuro lay xawma kan mo leen ñawal mais seen yëre Baye Fall yi moom macha allah rafet na lool car macha allah léegi euh, mbayang lu gis nga gars yi ñëw nañ ñu ñëw def niroole bu rëy say fans TV TV journaliste ñëpp ñëw Mbayang lan nga sentir ci woote ji nga woote ak wuyu si bu ñu la wuyu si. waa li ma sentir kontaan comme ni ñuy kontaanee saa su ne parce que boo wootee say mbokk ñëw say am di jaamu ñëw moom doo am lu du bég rek waa di leen di gërëm aussi yéen waa TV TV parce que sans yéen du dem. mais yéen tamit sa ñun du ngeen dem kon ñun ñoo bokku geew gi yalla nay rafet rek sa su ne wa man da lo la am lu ma si wax pour le moment di gërëm nak ndey Ndior ak Khoudia ak wa fan club bi ak sama jëkkër ak samay mag sama ñep dal nalen na leen bu baaxa baaxa parce que dañu japp rek baña baye sa su ne rek dañuy am yokuté mais dara wàññeekuwul kon nak yokuté ko bobu ñu ngi ñaan yalla mi nga xam ne moy maye mu gën ko yokku gën ñoo dooleel be buñu rusanté muy nek ci jamm ak salam rek wa sa su ne daal damay bég ci ñom sa su ne sama mbégte ci ñom dal du jeex mais mbay ak lum lan nga ñu mën a wax tay ñu ñëw fekk fi ki nga xam mom moy sa borom kër muy pap sen mu dalal ñu dal bu rafet ma sha allah yaakaar naa yag ngeen di def ndogu spécial ndogu mais ren gi dañu ñëw fekk fi ki nga xam mom moy sa borom kër mu doon lu rafet mu té vraiment mu ñuy dalal depuis ba légui waxtaan ak ñun waxtaan bu am solo seede ci yow ay ay seede yu rafet vraiment yow ak say àndandoo ñëpp lolou lan nga ci mën a wax. waaw kooku Baye Fall la kooku moom xol bi dafa rafet te boolewu dara ak i wax day def rek te yàlla tax oh, nit ku baax la aussi nit ku yaatu la aussi parce que nitu nit ñi la te nit moom boo nekkee nitu nit ñi rek li may wax Modou Ndour mi mun na si wax lu bëri doomu ndeyam la kooku ñi la te kenn la aussi si biir doomu aadama yi daay def du wax te xam nga loolu dafa jafe jamono ji ñu toll am na ñoo xam ne dañuy def ba pare taxaw fay ne di man maa ko defal lii mais képp ku mu defal boo waxul moom du wax borom mbaax la loolu nag dama ko si encouragé mu gën a góor rek si ay nitam ak sama nit aussi parce que ku ma ko présenté aussi da koy jàpp parfois ma toog sax bi mu ne ma ñoom diw anañu kon boole samay nit daal ay nitam lañ te boole boo kii na bëgg na daal samay nit te loolu dafa jafe parce que bu ko neexoon tamit artiste ak artiste dafa metti te man dama bari ay nit du góor du jigéen du daray ñàkk fayda nag jàmm la kese te comprendre na loolu ma koy gërëm côté googu aussi yombalal na ma affaire bi daal maa ngi koy ñaanal daal njobootam yàlla nañ ko jëriñ jëriñaale ñëpp. acte doon loo xam ne li tubaab di wax lii day gën a faciliter cohésion sociale mooy di boole ñëpp parce que tey vraiment boo gisee ñi ñëw TV TV yi ñëw ñu fekk fii euh, sa rakk muy Modou Loum sa say rakk yu jigéen ñoo xam ne dañoo jóg ba dëkk ba ñëw say fan si club ay góor ak ji mag ndaw góor ak jigéen ñëpp xëjuñu fi mais ñu ci kaw mais Mbayang genre act yi euh, le fait que nga jël initiative bi di ko dégmal chaque année fan la jógee. waa fi mu jógee mooy ma toog xalaat ne samay fan si dañ may teral saa su ne te man awma lu ma leen defal peut-être weeru koor gi moo mun a ñëw ñu occasionné si parce que si lañuy am temps pour toog ñu occasionné fi si defal leen ndogu mais ndogu bi dem na ba man maa si doon financé mais. man financé tuma sax parce que ñoom fans club bi saa yu ñuy ñëw dañ indi si biir fans club bi dama fi am ay doom muy ñoom buur ñi ak ñoom Babou Sarr dañuy dajale xaalis ba mu mot cinquante mille mbaa lu ko ëpp jox ma ko ñoom xuja dañuy indi seeni li ñuy indi tegaat si xaalis euh, ñoom Fata Fata bi nekk président fans club bi aussi ñoom itamit dañuy dindi loo xam ne bokkut ak li doom yi cotisé kon xam nga loolu nekkatul lu ndaw loolu lu rëy la te buñ sañoon sax ñu dem ba ci bay jënd ay nag diko ci te yàlla mi mom lepp ñu ngi koy ñaan bu defal ñu lool te dañ koy def rek aussi te yalla tax sentu wuñ ci dara aussi parce que tey buñ sañoon jamono ji nak mo démé no xamné légui filmé kat yi bari nañ mais ñun buñ sañoon sax duñ ko filmé diko yobbu parce que dañ koy def diko jëlé ci xol te yalla tax diko def euh, parce que doomu adam lepp loy def rek di def kenn ngir sal zéro la ci suñ borom parce que mom moy fay doomu adam mun na la jox alalam nga jëriñoo ko mais mënu la fay suñu borom moy fay te lépp lu ñuy def rek dañ koy def ngir yalla tax parce que fans yi dañuy sonu ci ñun té buñ sañu tay ñi nekk dëkk ba sax di ñëw fi di koy def te limay def ni njëkkuma ko fi man suñu dëkk sax année ba ni may wax ak yow dama jënd café Touba sama rak yi fi nekk di koy servir wa dëkk ba ku bëgg rek ñëw jël yobbu kon du fi lañ ko ñëkke li ñuy def dañ ko ñëkke fi ñu juddoo ak fi ñu yaru man lépp lu may def rek dama ko ñëkke kër fa dëkk kon boo ko defee feneen mu door a saf nit ñi parce que li ma def nii dañ koy filmer yóbbu waa Kër Faye buñ ko gisee dañ ah kii de li muy def nii te fa mu dëkk mooy loolu du ko fa def nii ak nii mais chaque année damay jënd café Touba ñi fa nekk di koy servir buñ séggee xale yi ñëw yóbbu dañ koy def rek te yàlla tax ngaramal yàlla aussi lañ si bëgg rek. mais xëy na tamit sa xol a rafet rek parce que nit bu amee fan sa club bu fan sa club yi di organiser dara di ko ko defal xëy na xolam bu rafet moo ko am na am na loo xam ne dañ ko gis yow. parce que bu ñu la jàppoon tamit jàppoo leen yaakaar naa lii yëpp duñ ci sonn ñii di la defal teraanga bi yëpp duñ ci sonn xëy na sa xol la rafet rek mais Mbayang Loum yow yow ak say fans yemoo leen ci lii rek yéen a ngi tëgg ay vraiment ay événement yoo xam ne day toj surtout euh, ci le premier mai bii ñuy waaj a ñëw yaakaar naa sa fans club am nañ làmb bu rëy fala ci Adrien Senghor Mbayang euh, initiative boobu ak euh, fu mu jógee ak li ngeen ji nar a jublu waa ak fu mu jógee rek mooy fans club bi moom li may wax euh, benn xale bu góor bu tuddoon mbay mbay bu mbayang dañ koy woowee sax je pense que ñu bëri xam nañ ko si amateur yi doon seetaan parce que moom moo njëkkoon di defar tiset buy ñëw ci làmb ji sol ko benn keneen ki tudd Isma Faya Mbooj kooku itam di def tisatu Faya di koy sol yàlla di dem di dem di dem ba laay presse di ne ma pourquoi mënuñoo def fan si club fan si club bi noonu la demee laay presse di créé ko ma woo Siyaaka ak Oumy Sarr instant boobu boobu ñooñu minante na ak yalla def aussi fan club bi di dem di dem be doon doomu ndey parce que ñun ñep ñoo bokku ndey man xoluma ne bot ne ñi dañ may supporter ay xol ne dama bokk ak ñoom benn wène bu ñu nam parce que aduna yalla bu len bolé bo len si bolé bu rafet ñu rafetal ko rek te dafa rafet kon yalla di def aussi ñu dem a dem be def ay édition édition be ren mu nekk le premier mais ñu ngi si wo ñep nak parce que comme ni mako waxe bu ñëk rek euh, xajalé wuñu kenn ñun ku ñëw rek bëgg nañ essentiel bi moy nañ gaay yi ci bu ñëwé aussi dinañ gis ay surprise parce que lu bëree ngi fi te li ma denc ni lima nii li ma dajale si weeru koor gi fofu la ko yëkkee du bako ko yëkk sax lu seeseen fofu la ko yobul pour le premier mais ndax nak ko le premier du yomb. wa ndax nak man ma ayé parce que fans si club bi moy man maay ñom kon nak du yomb ñu ngi si ñëpp. ba pare ñu tuddee ko ku mag docteur Makumba te kon kooku du ndaw du ku ndaw ñu ngi woo ñëpp daal nag buñ fa ñëwee dinañ gis lépp. kon boo jógee foofu lu seen ngay dem korité ak lendemain korité. incha allah lendemain korité foofu laa jëm ak gànjaay incha allah ak lamb yu bëri ndax lamb yu bëri bañ trop sax. mais xam nga tey euh, nit mënut a def interview ak Mbayang Loum ba Mbayang Loum wax ba noppi ba pare te ñamaluñu tuuti ci woyu sa woyu beesu rem gii. loolu moom yaakaar naa doon ñu ko bañal c'est que amateur yi dafa am benn boo xam ne dañ koy laaj mooy euh, seka fam noo xawma a ngeera ndap naa bon gid ma baaraane est-ce que mën nga ñu ma ñu tuuti ci woy boobu poot a ngeera ndap ka gid ma baaraane ka gid ma ak woy bi nga xam ne xaw ma bon béer dono laa ɓaak na ngara jañe ɗe tana mete langa bonge ela donga na ɓaak na ngara jañe ɗe tana mete langa bonge ela donga na ɓaak na ngara jañe ndeysaan loolu euh, nekk ay séquences yoo xam ne foo mu ciy am léegi euh, Khoudia Ndour yow ak Ndeye Ndior ban témoignage ngeen mun